dal leen ak jàmm dalati leen ak jàmm mbokki internet yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy teewlu rek saa su nekk mën nañ ñuy dikk ànd ak yéen ci li nga xam ne rek moom moo di ay xibaar bi la yoon kat ñu daal di fas yéene dikkaat ci li nga xam ne rek moom mooy tolluwaayu réew mi mën nañ koo daal di dooree rek ak ki nga xam ne rek moom mooy Bougane Gueye Dany moom mii naka ñu min ko lool ci li nga xam ne rek moom mooy terrain politique bi gannaaw ba ñu daal dee rek kale li nga xam ne moom mooy ay dossier am ci li nga xam ne rek moom mooy parrainage yi mën nañoo jàpp ka ne kat boobu boobu ba tey ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di waa Pastef yi ña ngay am lii di njortulu rafet kenekat moom mii di Bougane Gueye Dany eh, ci ay kàddoom dàqul dara pour naka dikk ànd ak ñoom ci li nga xam ne rek moom mooy xeexu terrain bi moom mii nag gannaaw li nga xam ne rek daal di nañ koy nemmiku muy ay jàngat yoo xam ne rek mën nañ ne jotoon nañ koo daal di gisandoo au début te naka du lenn lu dul rek ay matukaay yoo xam ne rek wala boog ay jumtukaay yu mu jël lu ci mel ni ay oto téléem ak ay réseaux sociaux nekk loo xam ne rek ci ay élection dina ko daal di dimbali cent pour cent ci li nga xam ne rek moom mooy communication bi mbir mi ni mel tax na naka ñu bëree bari au début xamoon nañ que ne kat moom mii di bogaan duñ ko daal di bàyyi mu yombe noonu mu jàll rek ci li nga xam ne moom moo di parrainage yi rawatina nag di dem di participer ci ay élection yoo xam ne rek jamono bi ñu toll nii euh, état bi ñu ngi koy daal di organiser tax nag ñu bëree bëri ci yi alliance le fu daal di am pour nag ñu daal di fas yéene ànd ci ay campagne ki nga xam ne rek moom moo di euh, Bougane Gueye Dany mbir minimel jamono bi ñu toll nii ñu bëree bëri ñu ngi koy euh, daal di euh, ruma ndaad rek wante moom mii di Bougane Gueye Dany mën nañ ne dàqulu mbir minimel di leen di jaajëfal ci topp gi safag ak faale gi seen chaîne YouTube Partout TV